nga nekk di compte dafa am un candidat euh, en l'occurrence Boubacar Camara oui. qui avait alerté en disant que bu ñu demee élection ci conditions yi euh, baaxul ci réew mi on ne pas prêt oui. et il avait préconisé un report de la présidentielle à l'époque ñëpp song ko mu mel ni mu mel ni mais mu mel ni lu mu doon lu mu doon ŋàññ ci processus conclusion bee baaxul mais li mu doon ŋàññ ci processus mu mel ni euh, les faits lui doon raison non il n'a pas raison mënoon ne nañ changé assemblée ni ñu defee dugal dugal ay dix députés ay treize députés ñu ne ñu ne ku dem am say say parrainage amul amul ay doublon ku am parrainage comme jëpp da nga ko wuti am ko comme député da nga wuti treize députés woon dag ko il faut être juste selon les parrainages bii député bii les élus locaux bii par citoyen citoyen bu ñëwee nga ne ah yow yéen citoyen kat am na ko am li nga am te député moom mënu mënu ko doublé kon mënoon a dinañ changer texte yi mais pourquoi ñu renvoyer élection yi pourquoi le report des élections ah, parce que bu ñu changé mais on a introduit les les treize députés là sans ñu reporter élection yi ces députés yàggul di assemblée ko de yàggul dara <laughs> bi ñu lépp mu jeex benn yi lépp réglé nice sans ñu reporter ko léegi bu ñu ko reporter lu ñu proposé nit ñi loolu la ñu def d'accord ma ci benn report des élections le président Macky Sall maa ngi koy félicité même ci BRT bi rafet na terre bi li mu liggéey Sénégal baax na bu kenn yàq deram day dem day dem na dem ñu ñaanal ko ndax liggéey na bi lu benn président mosul liggéey na dem liggéey ba rafet na lu ne day jeex nguuru yàlla rek moo dul jeex dañ koy ñaanal yàlla suturaal ko ndax dem na fi lu rafet mais nag quant à yokkaat mënul nekk na yeneen ñëw ma je pense que may ñëw remplacer sama xarit parce que ni boo gisee li ma la woon que teg ko ci Sénégal yëpp ñu di ma teeru fu ma dem xam nga dama doon ree dama ne ci àll bi dégg naan waaye diw dañ ko tere mu dem dañ ko gazé ci àll bi ma ne man de du ma xam nga lu tax hmm. ñu naan noonu da nga jege pouvoir bi ma ne déet dama def un pari mooy man nekku ba campagne électorale du ma jot dajal ay oto ay sonorisation bari circulation bi ba ambulance di ñëw du mën a jàll population yi xamuñu la mais da nga ñu xam la ndax xamu xañ xam kenn xool foo jógee boo ñëwee ci àll bi teg say musique indi farweere oto coow li bëri ñu ne leen dégagé nga bañ a lakk dóor ay lacrymogène ndax tali bi moomu loo ko nit ñi dañu war a jàll ñi feebar dañu war a jàll ñi waaj a dee dañu war a jàll ambulance dañu war a jàll ñi voyagé dañu yàkkamti am ay rendez-vous nga indi say fukki oto juróom teg ko ci tali bi teg sa musique ci benn dëkk pour nit ñi xam la ñu gazé la nga able man dama ne benn oto laa yóbbu man ma doon ay fukki oto de man ne benn oto laa yóbbu dama yóbbu garde corps billaahi wallaahi taala da nga image aw ma garde corps bu yóbbaale aw ma. moom déglu ma déglu ma déglu ma dina la ko diffuser. j'ai fait un mhm. lu tax lu tax l' élection présidentielle est la rencontre entre un naa def vers le peuple xool nu ñu may nu ñu teeroo man kenn cundum bu mu dee cëpp ci dëkk bi ñu may teeroo bu ma ñëwee xam nga dama dama laaj tali bi parce que euh, dama occupé tali bi. mais boo ñëwee tey fu ñu may teeroo day fee dellu dellu dellu. Ah. kon kenn du ma moo Modou wan ñu image yi. te boo wanee image yi part partout accueilli comme un roi. nga hmm. teg image yi dégg son yi ni ñu may waxee man nga buur yaay président. fii Nioro la. CCA Nioro. si maa fi jógee maa ngi jógee Kolda ci ay 23h nit ñi dañu ñu ko sonn mais mag yi day toog di ma nekk pour jël pour jot fiche de parrainage rek pour mu distribuer leen fiche de parrainage. nga xam nit ñi nañ ma dafa feesoon daan daan ba may ñëw kon li mu guddee. xanaa nit ñi dañoo dispersé wu. non nit ñaa ngi fi hmm. may xool li mu feesee. te yéen a de personnes di ba nekk. Hmm. ay junni fii moom fii moom y avait du junni waaw parce que. fële dama ah. guddee trop jógee Kolda yoon bi bon. Ah. bala nga ci bag bi. mu tardé trop ñu bëri def defar ay reer ak yooyu xoolal bi may see Kaffrine. yéen hmm. a fiche yi ma téye rek fiche yi laa téye nii fiche parrainage di ah, sëñ bi bay dox. waa léegi maître. léegi dañu wane Kaolack nga ko. ah. après bu la neexee ñu wane. Koungheul di dinañ ko wane. Euh, maître xoolal yow gis nga mbooloo yi ma topp. ah yow ku la waxoon lii bu ma dem àll bi lii la may toppee da nga ko gëm. ko gëm. parce que dama am man kay nee naa la dama am. mbooloo yi di mën nekk fu ma dem toj ko jàll.